يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو رحمن وهو رحيم خادم أمان السلام عليكم yéen waa كايم KM بايدام Baye Dame xasida mu ngi di am contentement bu baax si dalal bi nga ñu di dalal fii waaw Baye Dame xasida moom am ndongo la rek loolu daal daanaka moo mooy ma mooy kii bi ndax bu fekkee da nga jodd daal fekk say maam ak say waaju nekk si yoon woo xam daal yoon bu baax la ñun loolu xaj na ak ñi ñuy ak ñi ñuy fréquenté ak ak sa ñuy àndandoo waaw loolu daal moo ñu puuse ñu daal si ñu daal siy nekk waaw depuis bi ma ko tàmbalee nag daanaka mën naa ni yàgg na yàggul waaw mën naa ni yàgg na yàggul ndax booy xool sax man sama papa moom taalibe Seex la waaw maa ngi koy nuyu au passage bu baax a baax a baax di ko nuyu bu baax a baax waaw Baye Dame moom daanaka bari nañ ñu muy àndal sax si wàllu woowu ndorteel yi moom ndorteem njàng mi moom donte yàggul sax waaye yàgg nañoo topp ñoo xam ne nii si tànk yooyu lañ nekk waaw mën nañ see lim nag samay tonton. bayax daan naa ànd ak ñoom dina si tànt yi di leen xool di leen suivre ak bi ma ñëwee fii tamit ñëwuma rek Kër Moussa daad si saw saw saw bu mooy ñëw naa am si ay tànk yu ma jaar ñoom tamit teg ma si yoon ba nii nii nii bàyyi daam daanaka fu nekk sax mën nañ ko faa séen muy laayeen ya xaadir ya ak yeneen donte murid laa waaw loolu lépp lu muy la muy la muy wane tamit symboliser mooy que ni kat loolu maa mooy lu baax rek moom solo te tam man lépp loo xam ne daal yonent bi la yàlla man man maa nga waaw. waaw groupe yi moom bu si mel ni maa ngi koy nuyu au moom it mbay mu seex na ak ñi mu àndal yëpp. moom naafara daan ak moom waaw tamit ak ñeneen ñi nga xam ne tamit xañ na ay jànkat yu mag lañ tamit yenn saa kenn woo woo ma tamit ma ma ànd ak ñoom daal leen gunge si loolu nga xam ne ñoom dañ koy def. waaw fu mel ni Moussa Tallaamou la Touba waaw kooku maa koy nuyu moom it moo dañuy faral di ànd yu baree baree baree baree bëri waaw maa ngi koy nuyu bu baax. waaw li mooy li ma poussé moom ba ma koy def daanaka sax amaana mën naa ne lu gudd la sax waaye daa fekk ni nit moom boo nekkee si mbir ndax amaana man li nga xam ni mooy sax mooy yoon lu si bari rajas la rajas xasida ak zikurulaa bi. waaye tamit li ma boolee xiin yeeg yooyu noonu damaa nekk sa samay mag yoo xam ne nii damay faral di am programme di leen woo ñu si ànd depuis bi ñu ko defee nag ay ñaari at ñetti at ñu dem ba ne yoon la kat kon ñu wut groupe jéem a moderniser affaire yi si kaw modernisation boobu sa talan tàmbalee def ay répétition jël yoon wi nga xam ne daal fépp foofu jànkat di yegg bëgg nañ faa yegg si kaw loolu nag ñu ne nag faaw kon ñu wutu bis boo xam ne nag dañ si présenter li nga xam ne ñun ñun ñun kat ñun ñoo ngi koy def bi si jiitu nag mooy def ko fi nga xam ne fi lañ dëkk. waa Baye Daan nag daanaka daa xaw a yi ndax si si si ta ta nee naa la lépp loo xam ne yàllaa yeneen tabi rek daanaka moom mu nga sax waaye tamit li nga xam ne moo leen wutale amaana nekkul loo xam ne nii yomb naa misaal ndax damaa jàpp ni daal bu fekkee da ngeen ab jànkat nga même boo deful yëpp sax war ngaa mën a mën lépp. waaw war ngaa mën a man lépp ndax si sikar newul leen lu dul turu yàlla da ko jàng xasida yi tamit nekkul lu dul li nga xam ni ku tedd gi moo ko tagg yonent bi tagg ko yàlla suñu borom waaw loolu loolu loolu daal la donte nag amaana bu woote day am si liggéey yi lay doon xañ na waaw ndax xasida moom lañ si li nga xam ne na nam mënan kaase wala li nga xam ne mënu ëpp lu ñuy gis mooy que day amuk dal amuk waaw am na kii waa tamit sa kar tamit loolu lañ si bëgg tamit ba tax na yoon wi nga xam ne lancement de carrière la tamit am na si yow yu bari yoo xam ne tamit dañ kaa bëgg présenté foofu wane ne kat sa kar lu noobul la ki kay defit nii la war a mel nii la war a kii donte donte nag matewuñu ko sax ñun pour wane ko waa daa fekk ni nit moom lépp looy def daa laaj ak sellal te nag dañoo sénni kat yoon woowu mu ngi xaw a tuuti waaw bis bi nag ñu ngi koy defee si ndigalu sëñ Ousmane Gningue mi nga xam ne nii moo fi nekkal sëñ Touba fii si Kër musa ndax mooy ja bépp murit boo xam ne yaa ngi fi yeewoo top sal si sëñ Modou Fall mu ñu gën koo miin si Modou waaw si teewaayu sëriñ Jili Mbacke naa mi nga xam ne moom moo fi nekk tamit surtout sëñ Touba fii si Kër Moussa teyit moom lañ ko dara jaale waaye tam bi nu waaxu ba si moom yegg si moom tamit dani moom moom loolu bëgg na si loolu waaye du tee it jëlaat bis bi tamit séddaat ko ñeneen ndax bis moom bisu Sëñ Tuubaa nekkul bis bu tuut bisu bisu ñëpp a si xaj waaw ñu koy rafet moom it dëkk nuyu bu baax a baax waaw ñu ngi ko dara jaalewaat nag moom ki nga xam ne nii mooy président Mouhamadou Diop waaw ñu gën koo miin si Fay Njaay ñoom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax marraine tamit soxna Ndey Mbeng soxna Ndeye Mbengue tamit moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax man ko marina ak soxna Faat Ndiaye Seck mu waaw ñooñu moom lañu ñoom la jox bis bi waa ñu ngi si nuyuwaale tamit sëñ Baye Fall Mbeng tamit moom borom bis bi tamit waaw ndax moo ëmb daanaka li ñuy Baye Fall li nga xam ne ñoo yëgoo fii ni waaw ñoom ñu ngi leen si siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax moom maanaam woote gi moom umma bi yëpp lañ si yoo sax mën naa ne ndax programme bi niwul programme mu Baye Dame niwul programme juste que dafa am bëgg wane feeñal rek si kaw noonu tax moo tax ñu amu yaatal si bépp boor muy si xaajari si laayeeni si tiijaani waaw ñu ngi si woo ñëpp nag wax dëgg fa yàlla bàyyiwuñu kenn. waaw kon nag bis baa samedi lay doon premier avril ginnaaw bu ñu naafilaa ba pare. ndax si weeri koor la ñu ne incha allahu rabbi ñu ngi si woon nag ñëpp nag bàyyuñu kenn kon nag bis baa ngoogu mën naa daane suñu loxo waaye moomuñu ko ñëpp nañ si yaatal wax dëgg fa yàlla ñu si woon ñëpp nag ñu ñu teel a ñëw teel a assisté di si woo Baay Faal yi mbokk taalibe yi murit bi xaadir bi tiijaan bi laayeen bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi ñoo ngi deeti ñaan faqi dafay nangoo dagaan nangul ñu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi sëriñ bi ñoo ngi deeti ñaan faqi dafay nangoo dagaan nangul ñu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci Moustapha ma nekk marwata ki safa ak ak am di Moustapha mi yàlla jébbal xarnu bi